TV ci Leewtoo TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ñu ngi toog ak nag ko nga xam ne ni defe naa kenn du ko présenté Omar Diagne ñu gën ko xam ci turu Omes ñu xam ko ci sportu Sénégal defe naa tamit armée Sénégal am na si jaar-jaar waaye nag defe naa ñun ñun ñun li ñu ko gën a miinloo mooy lamba di suñu sport national Omes maa ngi lay nuyu di leen ziar. Euh, ba maa ngi lay fay di la baalu ak di la ci weer yu julli yi ñu jógee. Mm-hmm. Mm-hmm. di di ziare mbokk jullit yëpp. Mm-hmm. di jaale aussi suñu mbokk yi nga xam ne jóge ci temps yi. waaw muy surtout ci mbër yi. waaw ñu leen di jaale jaale seen njaboot ñu leen ñaanal yàlla yàlla yàqale àjjana. amiin euh, saison bi dañ ci duggoon mu dem ba ba ci biir mu taxaw ñu jóge ca corona bi ñëw tii saison bi ñuy dem naan làmb ji doo dina am problème dina am problème ñu dem ba benn moment gisaat combat yu mag yi di taxaw li gars yi soxla woon combat yi di taxaw loolu yow ban gis nga ci am. waaw mais loolu dafa nekk surtout saison bi ni mu demee nii. Mhm. Euh, mu nekk un fait boo xam te ne c'est le monde entier. Mhm. donc muy Covid bi fi nekk pandémie yoo xam te ne euh, adduna bi yëpp la laal. Mhm. donc discipline yëpp la laal. Euh, amul fenn fu mbay. tey rawatina tey làmb nga xam te ne tey Sénégal ñu bari dañu xaar tey. làmb yi am ay changement par rapport ak difficulté yi nga xam te ne. promoteurs yi amoon nañ ko pour tëgg saison bi nga xam te ne tey. pandémie bi ñëw na gën ko euh, sooxal. Mhm. tey euh, yàlla def ne bi promoteur yi ñëwaatee relancer waat lamb ji. Mhm. ñu mu dem ay montage de combat. Mhm. dañuy ñaan yàlla aussi malade bi jóge fi. parce que jusqu'à présent xalaatuñu ne euh, d'ici deux mille vingt et un malade bi fi jógewul lamb ji je ne crois pas tey ni ko bëggee mu demee dina ko demee mais dañu ñaan yàlla mu jóge fi affiche yi nga xamante ne dañ ko doon xaar surtout que l'année passée bi ñu démarré pratiquement les les soi-disant ténors VIP bëriwoo ñu ji donc euh, ren jàpp naa ne tey ak combat yi jot taxawal bu yàlla defee maladie bi jóge fii ak jàmm ñëpp jëloo seen seen activité euh, nañ am saison bu neex incha allah. macha allah saison bu neex yàlla nañ ko yàlla may saison bi bi ñu jëm ni yàlla nañ ko fekkee tal côté corona bi jóge fii gis nañ ay combat di taxaw biñ ci njëkk a seetlu mooy combat Balla Gaye ak Gris Bordeaux combat boobu retour bi am na ñoo xam ne daal jàpp nañ ne combat bi bii di ñëw nii mooy gën a saf bi passé woon bu njëkk ba. en tant que connaisseur ci wàllum sport physique ñaari mbëri lu manqué woon bés boobu ba combat bi mënta jeex. bon voilà en effet Babacar donc combat revanche souvent day nekk loo xam te ne day xaw a wuute tuuti ak bu njëkk ba. Mhm. parce que observation yi nga xam te ne mbër yi waroon nañ ko am. Mhm. ak analyse yoon woon am ci njàngat seen adversaire. Mhm. xañ na amuñu woon temps boobu. parce que période boobu Balla Gaye euh, kenn gëmu ko woon. parce que dafa jóge ci ay défaite. Mhm. donc physiquement euh, il était critiqué. Mhm. mentalement aussi il n'était pas parce que dafa tegal ñaar defar ci Eumeu Sène. Mhm. yoo xamante ne dafa entaché carrière mu nekkoon roi des arènes perte ko en même donc euh, Gris nekk ci phase boo xamante ne nii tey waa Fass dañ ko doon xaar. tàggat ko yëkkati ko tàggatal ko jox ko benn raay boo xamante ne nii tey ba léegi. jusqu'à présent il n'arrive pas à montrer ses qualités et ses capacités. donc mu daanu ci ci ay. Euh, avertissement c' est parce que passivité mm-hmm. ça fait partie des règles du jeu mm-hmm. mais malheureusement euh, demuwul ak noonu mm-hmm. mais cette fois ci je crois que ñoom ñaar ñëpp dinañu amaat aussi jàngat individuellement ku si nekk sa sa sa dina xool sa valeur u adversaire de le préparer en fonction de ça defal la ñuy wax un travail général d' abord après mu defal un travail spécifique par rapport à ce combat Balla Gaye il avait un peu compris bi mu tout le monde critique ko mu def son étude critique personnelle voyager il s'est repréparé ñëw wane capacité de d'exécution boo xam ne tey am na solo parce que da ko répété à deux fois de suite def ko contre euh, euh, Modou Lo def ko contre Gris je crois que euh, ah, Balla li ñu ko xaar ci moom aussi yaakaar naa ne fi mu toll nii war na man a gën a defar waat parce que autocritique mu defoon ci moom ba léegi des na parce que dene tôt ou tard dina nekkaat roi des arènes donc bëgg na référer en telle que mu am un deux à zéro mhm. mais Gris Bordeaux man je dis tout le temps que euh, la valeur de Gris Bordeaux ak xaar bi ñu xaar ci moom tey jii génne gu ko jël gu ko et ñoom ñaar ñëpp boo seetee ñu commencé jël de l'âge parce que la préparation physique d'un athlète dépend aussi d'une d'une continuité de de de ses de ses actions. Mhm. Pourquoi une continuité déjà bi ñu bëree daaw parce que bëriwuñu. daaw jëlañ bëri donc saison bi pratiquement bëriwuñu ñu war a toogaat encore war a reprendre entre au mois de mars avril mais juin donc ça reste au moins combien de mois pour ça au je crois que foofu seen encadrement bu ñu jëlul li nga xamante ne moo war a mat ci seen préparation faut feront aussi defo mbër mi aussi war na mën a bañ a toog di xool individuellement di xaar ba saison bi ubbi ngay entraîné war nga def li ñuy wax un travail préparatoire. mooy un travail de fortelec. mooy un travail euh, de de pré-saison. donc parce que li ñuy wax pré-saison la saison proprement dite ak l'hivernal yooyu yëpp bu si nekk mbër bi war na ko mën a xam et même benn athlète war na ko mën a xam. mais tey bu ñu bëggee ku si nekk yëkkati encore le niveau bi nga xam te ne moo la xaar ci revanche bi ku si nekk il faut nga woon sa qualité bi xam te ne mat na sa capacité mat na et surtout sur côté mental parce que le côté mental ñoom ñaar ñëpp ku si am na am parce que mentalement Gris Bordeaux n'est pas si prêt par rapport à ses à ses résultats mentalement euh, euh, Balla aussi mi ngi ci moom passe boobu donc euh, li leen di départager mooy la préparation très bonne proprement dite l'aspect stratégique et l'aspect méthodique. pour avoir un résultat positif. ok loolu am na solo jàngat bi léegi ñu continuer jàngat wax nga ñu foofu lu leer naa nañ li nga wax defe naa ñëpp dégg nañ ko dañuy ñëw si benn combat boo xam ne tamit euh, am na muy tafaatin booy ñaa yow tafaatin yoroon nga ko ay at yaakaar naa su ma jumul mhm. tey mu am benn xale bu mu war a bëreel ñëpp nan la ko daloon ca Ama Baldé est-ce que du ko am ñoo xam ne nañ léegi loolu mënatu koo dal loolu omes noo gisee combat booy ñang tafaatin. Eh, bu euh, ko cinq ans. cinq ans de 2008 en 2013. Mhm. ma am ak moom euh, cinq combats. Mhm. donc quatre victoires ak benn defet ok donc euh, boobaag léegi sa fait sept ans. Mhm. donc gis nga at bi donc temps ma def moom déjà. ak temps bi ma séparé moom déjà sa fait sept ans. sept donc dépassé na temps ma def ak moom. donc. Euh, maa ngi suivre combat am maa ngi suivre son écurie parce que c'est une écurie de cœur parce que falaa nekkoon xam bi ñuy créé falaa nekkoon falaa nekk bokk naa ci mais gis naa ne tey euh, Tafa depuis que bu quitté que son combat contre Ama Baldé amatuñu benn respect ci moom le respect par rapport à son comportement parce que physiquement boo ko gisee Tafa macha allah amul lu ñu ko war mën mais quand je dis tout le temps la préparation athlétique dafa war a nekk xam ne dafa a sax ci ci ci ci ci yaram parce que euh, une préparation physique bien adaptée sur un corps bien fourni war nga mën am au moins une assez de force force de manœuvre capacité de déplacement capacité de frappe capacité de mouvement euh, les techniques de lutte les variantes de lutte mais bu fekkente ne erreur bi mu defoon contre Ama Baldé rectifié wu ko il risque tout le temps d'avoir ce problème parce que par rapport à ses positionnements ñoom ñaar kii garde à droite la kii garde à gauche la qui monte Euh, contre euh, ama euh, contre Lac de Guiers 2 examen de passage am jàllul tey mu ñëwaat si un palier un peu égal à Lac de Guiers 2 je crois que ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk war nga jël un respect mutuel par rapport ak son adversaire avoir une bonne préparation et que booy Niang néewul doole néewul bëre néewul xeex autant aussi pour Tapha ñoom ñaar ñëpp pratiquement peut-être différence bi ñu am c'est le problème de taille souvent c'est sensible un problème de poids aussi sensible mais la valeur qui leur permettrait aussi d'avoir une force de manœuvre ou bien une manœuvre à forcer je crois que ça dépendra du travail qu'ils vont effectuer. léegi su ma la déggee kon ñoom ñaar parce que tafaatin kon xëy na actuellement jàpp nga ne ci wàllum poids wala wàllum li mu li mu yore. du maanaam lees war a liggéey la quoi pour yow wala. non bien sûr que dafa war a liggéey Tafa bi moo ko yoree euh, euh, de en 2005 2008 tout le monde a vu que Tafa physiquement il était la fin prêt sur le plan puissance sur le plan physique sur le plan athlétique y avait il tout et sur le plan mental mais maintenant euh, j'ai vu un, un un peu régressif par rapport peut-être c'est à cause de son encadrement ou à, partir de son environnement mais je crois que loolu loolu war na ko parce que bi mu permettre na ko bi mu jógee ci euh, ci tournoi TNT bi mu relancer wat donc depuis lors ça parce que deux ans bëriwul donc mbër bu toogee deux ans de suite et bu amul qualité préparation bu baax a baax bi ñu wax souvent yaram bi ñoom ñëpp athlète ah yaram bi li ñu war a laaj sur un travail continu ñoom ñëpp kenn am ko si mbër yi ma wax ñëpp ñi ci am qualité d' entraînement bu peut être néew la ñu tuuti la ñu doon ñi nga xam ne am nañu continuité de travail parce que le travail de maintien bi ñuy wax sur le côté mental maa ngi travail maintien maintien maintien le maintien c'est quoi c'est quoi si tu vas tu vas un travail de maintien par rapport à quoi donc loolu lépp seen staff war nañ ko mën a xool évaluer ko càmbar ko évaluer ko encore pour mën a indi nit ki si phase de compétitivité boo xam ne tey yaramam soxal na ko pisigam soxal na ko mentalam soxal na ko donc Tapha Tine moi je le conseille de refaire de refaire de parfaire encore son temps liggéeyaat gën a defarwaat pour mën a delluwaat ci place bu nekkoon. mën a delluwaat ci place am na dañu déglu koo xam ne coach su la ci wàllum boxe muy Jibril Kanji moom nee na Tapha Tine ci côté xeex Boy Niang moo dàq xeex parce que Tapha Tine bu sew moo këppale Tapha loolu ànd euh, euh, na si une lenteur bu m'excuser ah. parce que c'est pas le moment may may def une analyse parfaite pour donner exactement les forces et faiblesses. ak opportunité bi nga xam ne ki ci ne ku ñu nekk war nga mën am. mais peut-être avec le temps on aura à voir mais je peux dire que ne une certaine lenteur ci ñoom kenn ci ci ñoom ku ci xaw gën yéex mais su fekkee ne vraiment pour qualité de boxe la uniquement dóor ma dóor Tapha il est bien outillé. Boy Niang il est outillé mais dafa am stratégie bu différent un peu ak Tapha parce que astuce d'attaque yi ak les systèmes d'attaque les angles d'attaque yooyu yëpp dañ ko war a sóoraal di waxee c'est un international Il est entraîneur international de, boxe. Il était à l'ASFA. On était à l'ASFA, il à la euh, basket, moi, mm-hmm. je, euh, lutte, euh, boxe, man, man, man, euh, à la chaîne de football. Mm-hmm. Donc c'est quelqu'un que je connais très bien, et puis nous beaucoup en formation, en partie d'entraînement, euh, au niveau des, des entraîneurs. Tu as beaucoup parlé, nous sommes les gens qui ont ku si nekk sa force a sa faiblesse pour mën a changer stratégie euh, adversaire am mais Tapha effectivement il est fort ci corps taayam te manière bi ngay bëree ak forme de lutte bi nga am depuis bi nga commencé boo seetee depuis ses premiers combats c' est la même manière que noonu lay noonu lay bëree. Boy Niang aussi c' est la même manière que stratégiquement ses post piste ses déplacements ainsi de suite ses variantes qu' ils font depuis noonu la démarré mais autant que ñu ngi màgg nag autant que seen lenteur day day wàññeeku ñoom ñaar ñëpp seen lenteur dafa mu wàññeeku mais boo seetee tey li may wax euh, faral wax dafa am loo xam ne dañ ko bokk ñoom ñaar mooy les les centres de gravité yoo xam day dem. Euh, avec une garde à droite kii day dem une garde à gauche. kat mooy gën a nekk si danger ñaari garde yooyu nga wax. non am non c'est-à-dire que là je veux dire en xam nga souvent damay dégg ñu naan ay poste euh, poste garde amul. Mhm. le boxe boxe dañuy wax ay poste garde ainsi mais au niveau de la lutte quand ñi euh, kii tey na droite kii tey gauche ne da ko tëj c'est parce que c'est par rapport ak angle bi nga war a attaquer c'est par rapport ak distance bi nga war a positionner. c'est par rapport aussi ak positionnement ak stabilité bi nga yor mhm. donc loolu dafa nekk loo xam ne nii c'est scientifique mhm. pour que athlète bi war ko mën a mhm. tey boo tegee pied gauche ma teg pied droit donc la distance ñu sommes à équidistance équidistance moo xam ne pas toll nañu mais bu fekkee ne teg nga gauche ma teg droite donc suñu ñaari tànk ñoo gën a jege ñooy mais ñaari ci des day sore est-ce que comment wax mais léegi mooy def différence bi maintenant les qu'il faut coach kontaan naa ci yow. merci beaucoup jaajëf merci beaucoup jaajëf.